amis téléspectateurs de la Sen TV bonjour dalati leen ak jàmm ci seen émission 100% Buzz san Buzz nag di émission bi ngeen safoo taamul ko seen bopp ñu koy amal samedi bu jot euh, bu midi jotee man jigi ak suñu invité dégtal leen lépp lu nga xamante ni moom moo di rago potin coupure d'article Buzz. waaw na fi ni nga ko waxee noonu la donc euh, émission bi tàmbaleeti na ci midi samedi don bienvenue pour 100% Buzz sur la Sen TV. donc tey moom xam naa invité bi ñu am dina Alla Dawme mais balaa boobu dañ leen di faral di wax li nga xam ni moo di rubrique bu njëkk di euh, lu web tey balaa lu web tey aussi ñu waxtaanee émission bi rek incha allah ci kanam kanam lay doon. Hmm, voilà bi comme ni nga ko waxee. Euh, samedi bu jot dañuy dégtal euh, lu web tey ci kanam tuuti di nga ñu wax lal di nga ñu wax lal web bi xëyee tey ci suñu people yi mais laata loolu dañu fi am nag ab invité bu nga xamante ni vraiment tey fecc mi bu fu mu yegg rek euh, maxtaar mm-hmm. war nañ ko ko sante waaye itam fépp fu nga xamante ni taasoo ko wayantu yooyu noonu bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko njëkk def ba may ñeneen ñi fit moom mm. nag mu di Papa Ndiaye feccikat ñi naan ko Papa Ndiaye Thiou ah maa ngi leen di nuyu di leen ziar di kontaan lool ci invitation bi di nuyu borom kër gi. Hmm. Euh, taalibe sëñ Mbacke soxna Lo bi buggaan yàlla na ko yàlla may ay télé télé télé télé télé. Hmm. ndax li mu def nii bu ko Sénégalais yu bëri defoon. Hmm. chômage ak ñàkk dimbali waajur dina fi jóg. yàlla ko yàlla defal jàmm sàmm ko. sàmm kull kuy sénégalais baa ngi jullit ak ku dul jullit yëpp. yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm. voilà mais eh, Biggi Papa Ndiaye dafa mu ngi ci été bi moom. moom kay dafa teel a dugg ci été bi sax moom. Mm. ay plastique am gis nga ko. ak shortam. Pape da nga sañse de. moom dafa chic nag. Mm-hmm. dafa mën a nu mu demee noonu bii mooy ban nag bii mooy ban tendance parce que rubrique xam nga am na tendance ba foog ñu dugal ci <laughs> tendance monde nag. <laughs> Gucci yi. Mm. Euh, moment bii nii il faut nga laal ko parce que dafa xaw a day taw. Ah, waaw dangay ngay xuus de. ba pare comme que dama génne kili bu bees def ci tendance plastique. Mm-hmm. wan gars yi ne ku ci nekk ko am sa dàll yu baax it mën nga ko def sa saak mais ngay mhm. laal say plastique ba foo xamante ne gisoo ndox mhm. wala dara mhm. nga doog a laal say fermé short bi nag waaw étawu rek bëgg di féex foo toll parce que xam nga sénégalais yi toujours dañ koy wax ni yaakaar ni dama rëy wala damay tiital man sañ si sama yëf la danga ko mën de waaw damay toog di ko suivre ba 4 heures du matin may doog a nelaw wala ma seetaan ko ba sama bopp bi sa hiver yi ñuy dëgg la xam nga sénégalais bëggul ko wax dëgg. Mm-hmm. ba ci ñun artistes yi. Mm-hmm. bëri na ñuy nekk ci biir salle di def clip sol ay lunettes de soleil. Mm-hmm. mais yow yaa ngi nii toog ci studio. sol lunette de soleil xam naa. voilà yow kon comme yow ki dégg na ma. Mm. xam nga dafa xam a bànn. dafa am lunette la. ok. yow bi nga takk nii pour pour. émission <laughs> dama koo bëgg. voilà ça ñoom ñaar laa jëndandoo. Ah. lii maa ngi ko jëndee quatre cent cinquante mille. Ah. et. kii Viviane Vessoud la. am xoolal am na bu noir. na fa est-ce que duñu waxtaan ak kii ba ci kanam ñu dugg. waaw waaw waaw c'est important nag. Viviane Vessoud voilà ah. ci incha non bii am na édition black bu noir mais duñu pubal waa ñii nii. amul problème dafa xam nga da ngeen a bëgg invité nit ba pare du ko wàññi. non non kenn wàññi waaw kii de jëm accessoire ak plastique. man li ma jaral. xam nga a moo xam. kii de Jimmy Chou la moom certifié man xam nga kan moo ma xam. Hmm. Fally Ipupa. Hmm. kooku moo la nawloo. Hmm. moo la xam de waaw lu tax nga ne Fally moo la xam nag. waaw parce que euh, seetaanal berseem bu mujj bi lu nekk yi la takk. ça veut dire man Nafi mën naa def tournée ba pare am benn 3 millions ba jël 1 million bi def sama compte. 1 million bi partagé suma waa kër. jël sama 1 million sama benn montre ak benn. moo tax ngeen di laajte 1 milliard na fi duggal. voilà euh, bi comme ni nga ko waxee je pense que Pape moom annoncé na boppam pare xam naa tey waxtaan bi dina riche lool ndax Pape dafa euh, polyvalent alors Pape nga génnee nag lu bees sax bokk ci li waral sax nga teew fi tey ndax euh, gis nañu ne loo génnee nag it lay doon. ñu ngi mm-hmm. fàttaliku namul dara. ñu ngi mm-hmm. fàttaliku ba nga defoon ak Pape Diouf. ak Fata nu mu tuddati ak Fata vraiment. si mbang mu neexoon lool vraiment. ñëw euh, bi clip bi génneek léegi di def vraiment le buzz sur la toile est-ce que mën nga ci ñëwaat un peu sur la réalisation de de cet opus. waaw clip bi ça fait trois mois ma koy jóg. Mm. bi ñu tëjee laa ne ah lii comme que mënuñu ci dara mënuñoo forcer ba jouer ñu forcer kon ne suñu kër tëju gën a liggéey parce que tey musique Sénégal ñu wax ko ñu ñàkk ko wax wërsëg tolloo mm. am na ñuy doxal am na ñu dul doxal. Mm-hmm. loolu nag ci àdduna la am am na ci jaaykatu xar yi am na ci jaaykatu gerte yi am na ci télé yi am na ci waykat yi loolu sunu borom la waaye li am solo ba am solo mooy gëstu bi nigériens yi di gëstu mhm. di fexe bay wane seen aada seen cosaan ak luñ def duñ ko defaat ñun dañoo dañoo nekkul foofu mhm. ñun bopp ba tey même chose dañu def même clip yow ci nga bokk bi déedéet man boo xoolee sama clip ndékki lañ ma yeewee gars yi dañ daan am complexe di jël ay euh, sa ay salup wala ay kii di ci ànd xale jigéen ñi. ay salup. ay salup waaw mooy bato yi nekk ci géej yi. waaw dugal ci xale ñu sol ay dër ay yoot. non non non waxuma sax yoot waxuma sax mais booy dem gore looy yóbbu. salup gars yi dañ koy jël. di ci jéem a kiliba ak yooyu ma créé gaal. Mm-hmm. wax na ne ni affaire bi bëggante. Mm-hmm. du ci matériel. bëggante mm-hmm. ak xàppi mm-hmm. du ci matériel ça veut dire que na la sa jabar mettre à mm-hmm. yow nga mettre à sa jabar pour ànd bi oyof équilibré waaw boo xaatal <laughs> man daa bëgg wax ak jabar bi ça veut ku nekk da ngay mettre sa morom à l'aise mm. ko defee ànd bi nag équilibré mooy yoon sax nag ku ne nekk à l'aise boo gisee xale bi daf bu neex bu diggee neex mu yemee ndékki bu neex ma sangu ba seet taal sama oto liggéey nga sang ba set taal otoom liggéey. bu ñu ñëwaatee kër gi day gën a la. Mhm. mais Pape euh, euh, fecc mi euh, woy bi au début c'était pas facile ndax les gens disaient fecckat yi moom nii rek lañ mel doy waar léegi fecc mi doyatu leen dañu bëgg a woy yow nga def mu neex nga defaat mu neex nga defaat bii di confirmation ñooñu tey lan nga leen di tontu. non def mu neex dafa mu neex moi je suis là pour faire mon travail. Hmm. dama juddu am ay waajur. ñu dimbali ma ba ma mën a dox ma a wax mën a wuti kon man tamit dama leen war a delloo. njukkal boobu moo tax ma ne fi di daan sama doole. Mm-hmm. buggumaa lekk lu lewul buggumaa jël lu ma moomul buggumaa nekk di ñaanaatu donte géwél laa nag su ma la waxee digg lu baax mën na maa teral ndax dama ko doon sa sama maam mm-hmm. waaye je fais mon boulot mm-hmm. ba lu ma ci am ma jariñoo ko fecc mi pratiquement kenn gisatu la ci nu mu demee noonu wala li ngay fecc bëriwul boo feccalu sa bopp rek pour la plupart du temps ci seenu Pape Diouf lañ lay gis est-ce que ça signifie que da nga bàyyi carrément di fecc ci ay clip comme na nga ko daan defee waaw ba bigi nee na da nga pataa ba bigi li wax am na solo mën na nekk parce que ni ku nekk ñaan nga yàlla pataa ndax moom nii bi ma koy xam toll woon ah, nii. ngeen ma cee génnee nag <laughs> c'est man nag vraiment sama invité dañuy tàmbali di ma tutoyer. ngeen ma cee génnee waaw non laal foo xamante ni ñoo ko bokk. Hmm. bi may bigi bi may dugg kanamu car rapide bi may dugg kanamu car rapide uh-huh. di dem di gérer di fàlli liggéey uh-huh. di am sama 3000 di ko bokk ak sama yaay uh-huh. dama ñaanoon yàlla dem ba yor sama oto bopp taal clim bi di yeewoo ci clim di lekk bu suur am yaram parce que nag amul kenn ku fi am rek juddu rek ne ci un mois rek ba faaw déedéet da ngay màgg de dama war a juddu nekk xale bu góor toll sama digg naaw ne kenn du bouger def na ko fi Balla Gaye def na ko fi Yékini def na ko fi Eumeu Sène def na ko fi Modou Lo def na ko fi. Mhm. ça di il faut nga juddu xam ne da nga war a liggéey waaye bis dina ñëw da nga fiy jóge. Mhm. mais moment bi fi nekkee da ngay wane ni moment yii maa fi nekk. Mhm. léegi nag le temps ngay jëm nag. nga xam ne li nga bëggoon a rêvé yëpp def nga ko. Mhm. fanaan ci hôtel yi seer yi. Mhm. ànd ñu suñu shopping. Mhm. dem ci dëkk yu bari. Pape shopping sonal na la nag. non loolu loolu ci man la bokk. fashion victime la yow la gën a sonal bëgg ndax yaa gën a bëgg yëpp lu baax. oto yu baax yi pour doomu aadama yi du pour kañe yi. dëgg la yaa ngi nii léegi commandé sa ceebu jënu puute paate patax bu ànd ak lingom dëgg la dootoo ko defati yow tey. ci midi gii. waaw. Eh. léegi léegi yaa gën a bëgg ñëpp lu baax xoola moo xoola montre bi gi. xoola ay accessoire bi gu. Mm-hmm. kenn gënu koo bëgg lu baax. Mm-hmm. yu baax yi fi ne du pour kaña yi. Mm-hmm. pour nit ñi la. <laughs> mais yu cher yi nag du pour nag nañ waxante dëgg parce que yéen tey jii naaf yi est-ce que duñ dugg ci. bi gi sama première clip fukki jaay laa ko jëndee sama première costume. waaw 2000 laa ko jëndee tey bu ma demee bay sol ay mosulo. wala may sol ay naf-naf. mosulo wala may sol ay jëmisu. sunu li ma liggéeyoon dimbali na ma ba fay ma. di tay tay daa wuteeg ba may sol ay semis ay costume deux mille francs nag. waaw Pape nag am naa ku mel ni Matar Diop suba teel. Hmm. am naa ko mel ni Biggi. am naa ku mel ni Bougane Gueye Dany. Hmm. bu baax bu nekkee sa ginnaaw di man aw ma xaalis bi. Hmm. barki Serigne Saliou waaye am naa ay nit yu am xaalis. léegi Pape. yaa ngi koy wax léegi sa diggante ak Youssou Ndour moom bokk na ci ñi tax ñu gën la xam. Mhm. parce que ñu ngi fàttaliwu ko bii gi ci seenu. ak sama liggéey ak sama yooyu yëpp ñu dinañ ko am. ak sama mën a liggéey ak sa mën a liggéey. Ah, ak sama mën a fecc Pape teel nga mer nag Youssou kenn du la woo. ak ku mën a énervé de Pape. waaw moo tax nag ma leen ma ko sax yéen sax gën ma gën ngeen ko leeral. voilà ku mënul du la woo mais mais. c'est bon non d'accord na nee na ku mënul la kon. waaw dëgg la man pareegu ma de dama ne Youssou Ndour xëy puus la indi Papa Ndiaye Sonko. papa nu mu tudd. Papa Moussa Papa Moussa Sonko vraiment parce que nee na moom ni nga doon përiyee. munoo daal moom Papa Papa Sonko moom doon jugee fii dali fee. ci am musuñu ay ay waaw waaw musuñu ci am daal lu leer leer est que tey jii mën nga ñu expliquer lan moo la jëlee peut-être foofee nga xamante moom di super étoile waaye nekkoon avant may ñëw ñoom ñu leen fa jëlee. kooku ah, dafa leen nag yow dama fa leen kan nga fa ñu ma fa war a fekk. foofu am woon kenn ki gaañu ki nu mu tudd fecckat bu mag a mag ki njëkk a fecc. te nga bàyyi ñooñu ñu nelaw te yàlla rek. yàlla ci kooku man ba mu fa jógee yow naa ma gis dugg ci oto yàqu te yow deewagoo ba tey ñeneen yaa ngi ñëw. yaa ma gis de yow yaa ngi nii di dund tollu la neex sor sa perkaal yàlla naa la yenoo yóbbu la. jërëjëf voilà. na fekk gaañu tey àll sekk àll fa nekkoon. déedéet bi gi nag xaa kañ nga judd nag. déet kañ nga judd. démb balaa judd man. Ah, kon da ngay laajte ñu wax la. non dama dama ne. laajteel ñu wax man laa fa doon gis. fii nga toog ba ma fa jógee dama ne fii nga toog. waaw am na ku fi toogoon. déet émission bi fi jógee am na ñu ñëw. ñoo ko demee non nañ wax rek loo xamante ni déglu ma rek. incha allah nafi nafi nañ dimbali ñi ñuy seetaan. waaw ñu dégloonte. fi mu toogoon. Mhm. tey bu fa Wally Seck toogee wala Pape Diouf c'est normal wax naa la ko fii léegi. Mhm. nga naan ma tollee ci téye réew mi damaa téye réew mi ne kenn du bougé. la ma toll nag ci takk jabar may defal déjeuner au lit parce que nomatuma yow ngeen wax ànd ak Youssou Ndour fël falaale léegi nag dégg ma ma ne ma namatu ko damay dem nag def nii nag ah, moo tax nga xajal nag Pape Moussa muy naaw waaw mais nee nañ woon naaw moo tax nag waaw d'accord naa ko mënoo woon naaw léegi nag moo tax ma bàyyi ko ki mën a naaw <laughs> moo tax ma bàyyi ko ki mën a naaw muy naaw man may def ay déjeuner au lit mhm. di faral ci kilim ñu naan ma papa ma naan bébé parce que nag voilà loolu <laughs> waaw boobu moom d'accord nañ ci moom gis nañu fan yi ngeen euh, euh, ñu joxe 3 milliards jëmale ko ci jàppale leen ndax ni ngeen impacté ci coowal Covid 19 ñu yëkkati lu tolloog 50 millions jox ko secteur fecc mi yow mi Papa Ndiaye Thiou nga def point de presse toog ci digg table bi téye sa micro ne 50 millions dafa tuuti da ngeen koo gedd delloo ko dem sax bay laaj un milliard. waaw loolu mënoon naa ci bañ a wax parce que tey jóguma sax pour association des danseurs dama jóg en tant que Papa Ndiaye di promouvoir sama clip bi mais. su ma toogee nga laaj ma ci war naa ci mën a tontu mm-hmm. ndax ñëpp ay sénégalais la mm. mais nag damay saluer geste boobu ba pare ndax ñi toog na fi ba taay te génnewul loolu jox ko danseur yi mm. mais dama ne pour mu leer xam nga ñoo xam ne gis photo rek ak ni ñu ko bindee rek mm-hmm. ñu dugg commentaire mm-hmm. demeewul noonu dama ne ñuy jox bu fekkoon man Papa Ndiaye Pa Moussa Amethou Amady Badiane Djily Mbaye Ndeye Gueye Oumou saw Aïda Dada nangam nangam ak nangam ak nangam ak nangam rek la bu neexoon ñu jël ko jariñoo ko ñun mais dana bay ay rak tey ñun ñoo fi ne di dund suñu rakk yooyu ëllëg ñoom mën nañ nañu yor suñuy doom. du dëgg. kon nit booy def da ngay def loo xamante ni ëllëg say doom ku leen gis ne kii kat bigi nii mos na maa defal taraanga. te papaam nekkatu fi xaaral ma fay ko ko man noonu laay xalaatee su ma defal nit lu baax dama ciy xalaat ëllëg bu ma fi jógee mu fay ko sama doom wala ku baax wala ku ma xam. ndax nag tey ñu ngi fi waaye ëllëg xamul fu ñu fu ñu mujj. yàlla na yéex kon donc ñooñu la ñuy kaasal mais bu doon ñun rek bu ñu woowee jox ñu ku ne cinq million wala ku ne 10 mën nga ne pat mais dama ne bu ñu xool ne Papa moo fi ne mooy le meilleur bu ñu xool ne Oumou Sow moo fi ne mooy le meilleur. non nañ ci boole àdduna bu dul woon ñi mën. ñi mënul duñ fee bu dul ñi mën ñi mënul bigi ay animateur nga may liimal liimaw fi benn fecckat yow feccatoo ngay la mu saw feccatul ngay la meilleur fu ngeen meilleuree <laughs> ah yéen tam neex ngeen de bigi bàyyi leen bu fecc bi paralysé yooyu loolu naa la ba sonn yàgg na fi nii seetaan nga loolu ba tey nekk xale dina doo dalay ci recommande booba xale la waaw ba tey dama ni waaw ba tey yow buñ leen joxee un milliard yow doo tiit doo tiit ne bisimilahi rahmaani rahim un milliard la ñu Macky jox ñun fecckat yi. yow damay summi samay verre nag. tekkil. yow yow bi yow jombale nga sa bopp un milliard. jombale wu ma ko moo ma jaaxal. c'est quoi un milliard. a maye. foo gis fu ñuy maye un milliard ci réew mi. yow da koy joxe. ñi ko am tey ñi ko am tey fooguñu ko woon rêvé wuñ ko woon. Euh, euh, euh, MD ñu dem xool ji suñu rubrique bu njëkk mu di. lu web tey bi gi dégtal ñu site internet yi lan la ñu xëyee tey ñu dellusiwaat ci coowal milliard boobu. tey web bi nag li mu wax dama koy tàmbale ak dëkku Papa Ndiaye fële ca États-Unis xam ni miin na ko la famille Kardashian mm. nga xam ni actuellement ñoom dañoo nekk ci euh, instance de divorce muy Kim Kardashian ak euh, jëkkëram di Kanye West. nag nee na jëkkër ji dafay souffrir ci ay trouble bipolaire maanaam Papa Ndiaye ni mu mel nii bu tayee mu mel nii subaa mu mel nële <laughs> looloo tax nag mu daal di bëgg a génn ci euh, lii di divorce bi ba pare euh, nee na tant que demul faj li nga xam ne moo di trouble bipolaire am bi selon le magazine américain The Sun nee na moom du jéem a dugg ci li nga xam ne moo di demande de divorce Kanye West moo bi nga wax léegi lan trouble bipolaire dimbali ma pour ñuy seetaan te dégguñu olof. comme hmm. sama zaral waaw mooy ñi nga xam ne nit kuy fàtte ku lay wax lundi lii. maa di wax bu mu mel nii bu subaa mu mel nii gannaaw suba muy changé daal bu tayee du hmm. du nduru bu ni muy mel tey du bokk ak ni muy mel. Euh, suba donc moom nag nee na pour euh, sauver li nga xam ni moo di divorce bi nga xam ne dañ koy waajal ndax seen divorce dafa daal di cher ndax c'est estimé à des milliards de francs CFA maanaam des million des centaines de millions de dollars donc moom Kim Kardashian nee na euh, depuis 2018 jëkkër ji mi ngi bëgg def li nga xam ne moo di divorce mais ba léegi ay problème de bipolarité maanaam trouble bipolaire yi mu am moo tax euh, bëgguñu dugg ci lii di divorce lii indi coow ni nag du dara lu dul euh, Kanye West dafa demoon fële ca benn congrès bu mu am amaloon euh, ca États-Unis daal di def benn Euh, prise de parole en public daal di xamale li nga xamante ni moo nekkoon désiram ne moom ba mu daal di gisee première grossesse wu jabaram dafa nekkoon di euh, bëgg ñu daal di génn li nga xam ne moo di ëmb bi far yàlla dogalu ko moom aussi mu dugg ci li nga xamante ni moo di euh, papaam li mu bëggoon yaayam def ko et tout cetera le fait que mu bëggul woon désiré wuñ ko woon en tant qu'enfant alors que moom juddu na ba tekki ni fi mu ne nii euh, loolu la doon joxe comme euh, exemple muy di coow nag trop ci réseaux sociaux yi ñu daal di jàll ci deuxième euh, actualité bi muy vérité yi Taïb Socé wax ci quartier général moom nag ba mu jógee fële ca quartier général lañ ko daal di gëj gis fële ca Futur Média fan yi nag dégg nañ ko ca i Média Invest maanaam ITV bi DJ Boubs maanaam Boubacar Diallo jiite moom nag nee na dekkoon na ci benn village doon reposé wu jël air pur am ba pare raison pour laquelle mu jóge fële ci Futurs euh, Médias mais dafa def pose daa di quitter définitivement la boîte après 15 ans de service moom nag dafa bañoon ni door du participer ci émission bi nga xam ne moo di QG parce que intéressé wu ko woon ba pare nee na téléthon bi nga xamante ni moom lañ ko interpellé woon ci Bougane Gueye Dany Taïb Socé nee na mi ngi koy sant di ko daal di gërëm moom ak kii di Iran Ndao ndax bi ñu dajalee cent millions yi pour jëm koo mën a euh, créer lii di libération moom nag euh, Taïb Socé moom moo nekkoon fële ca RFM daal di dugg fële ca TFM moom nag depuis 15 ans la fa nekkoon ren jii nag dégg nañ ni que actuellement mu ngi fële ca E-Media Invest ñu koy euh, ñaanal peut-être euh, carrière bu daal di am solo trop trop pu ñu jógee foofu dañuy dugg ca. kër Moussa Ndiaye Moussa Ndiaye nekk ki nga xamante ni moo di célébrité de football maanaam nit koo xam ni la international sénégalais la doon football bu ñu fàttalikoo en 2002 jotoon na bokk ci Lions yi nga xamante ni footballoon nañ moom dafa perdre lii di doomam dafa génn àddina xale bu jigéen donc ñu koy massaw bu baax a baax ci génn àddina bi mu génn àddina ndax indi na euh, benn petite euh, polémique ci euh, réew mi ndaxte actuellement bu ñu jugee ci euh, coowal euh, li nga xam ni moo di famille Kardashian ak euh, coow bi nga xam ni moo di Taïb Socé ba jaar ci Moussa Ndiaye dañuy dugg ci mariage bi nga xam ni moom mooy tëj actualité bi di Oumou Sow nag actuellement mi ngi waaj a nekk maam nag xam naa ni foofu laay tëjee ndax moom joxe na kii di maa bi doomam Euh, da koo maye am na. jëkkër mais doomam dëggantaan la. doomam dëggantaan benn doom elle a une seule et unique fille. Mm-hmm. muy maa bi dafa marié wu euh, semaine bi ñu daal di génn. Mm-hmm. ñu koy souhaité un heureux ménage c'est di xaar nag umu daal di waaj nekk maam pap xam naa nag léegi ngeen retraité lii laa doon wax sànq ma ne la ñi nga lim. ñu ngi jëm ca mbeex ma yow mi retraité nga feccatoo yaa ngi noonu nekk animateur moom umu nekk na animatrice ba pare doom ji takk nañ ko léegi moom mi ngi waajal ku toog nii nag ndéggee ngi sëy ndéggee ngi sëy yéen ñëpp ngi doon ba pare di laajte un milliard yéen yéen seen ñaar seen association yi vraiment man jaaxle naa ah. may ma ma may ma ma ñëw Pape may ma ma ñëw tey bi corona bi ñëwee mm-hmm. invité nañ fii benn kat xamatu xamatuma kan la ndéggee la ndéggee waaw mu ñëw wax rend waa rendez-vous ñoo ko dalaloon mm-hmm. mu ñëw wax ni moom dañ leen def clip Amady Badiane la leen jiite. Mm-hmm. ñu sensibiliser ñoom fecckat yi parce que seen i tànk rek lañ am temps ci pour sensibiliser. ba mbas mi jàllee ña impacté ca feebar ba mu yéen nii yéen a génn ne da ngeen def point de presse xam le ni 50 millions yi da ngeen ko xeeb muy ñaari association bokku ak ñi nga xamante ni ñoom nee nañ. Mm-hmm. yëguñu tinuñu bokkuñu ndax. Mbathio Ndiaye moom biñ ko invité elle a dit carrément kenn woowu ma ci clip bi bokkuma yow mii clip boobu gisuma la ca. keneen ak keneen noonu Arma bi gi mu ngi koy wax léegi mais mais yéen vous êtes qui en fait. man wootewu ma studio wootewu ma clip man sama clip bii ma indi nii muy li neex na lii laa def pour man kese. Hmm. mais bu dee wala clip hmm. dañ ma cee hmm. sama association. bi bokk ak suma ay nawle bi ñu waree toog wax toog nañu wax ne ñun xeebuñu ko mais dama ne nañ ko jël yokkal nu ko wala ñu jël ko defal ñu ko ci santé. dégg nañ fi ku tëgg ba sonn dem ba mënatul ñu koy ketal lakk di ko jéebaane loolu baaxul ci dëkk nit bu jëlee yëf jëmmam ak dooleem ak ndawam defal ko dëkkam mm-hmm. nu nguur gi jël xaalis bi ñun defal ñu ko benn affaire boo xamante ni papa Ndiaye doomam dañu am carte ak yaayam bu ñu feebaree bëgg ñoo faj. léegi yéen su même même s'il te plaît rek maa ngi wax lu am importance. waaw doo gaaw am carte daal lu 400000. non même si su 1 million yére 100000 francs nu amee carte. mais dañ ma koy samay géer dama am ay nit. waaw hmm. baax na yaa ngi ni dama ci naa ak sama géer bu nekk Angleterre ñu dugg mu ne ma dama yàgg bégal. Mhm. kaay dama lay taral. Mhm. ñu dugg ci boutique mu jëndal ma lu rëy. Mhm. ñun loolu lañ am na fi. waaw li nga doon wax lu important ba waral nga tiitoon. waaw même pas liquide même pas liquide mais yéen ak ñeneen animateurs yi man du ma animateur ñun duñu ay animateur ay journaliste ngeen ko. waaw bàyyi leen ku ngeen invité bu waree wax ngeen dagg chaque jour ngeen dégg. mais mais yow xam nga waxoo dara lu yegg yow waxoo lu yegg chaque jour ngeen dégg chaque non métier bi maîtriser wu leen seen métier. yow da ngaa maîtriser vous êtes trop nul. vous êtes nul. bigi léegi a xeex. Ah, barke ah, ma ne dama ne bigi eh. dama ne non grand tekkil ma li waay. Ah, yaa ñu gën a nul. boo boo ko waxatee léegi ñu dañ ñu àtte li nga maîtriser li ngay wax. maîtriser li ngay wax. non na maîtriser li muy wax. non dama la li tekkil affaire bi non na ma ko tekkil. émission bi jeex na wuy ma amul dara lu ñu jàngal dama leen di jàngal amoo dara lu ñu jàngal ñun li ñu nekk dañoo mën li ñuy def moo tax ñu teg ñu fi mën fecc nga ba sa tànk bi foxoj nga dem ne da ngay taxaw waxi télé ñun suñu yoon yàlla ma yàlla musal ci foxoj tendance bi lan la tendance bi lan la tendance bi lan la daan clip bu mujj allez découvrir et le clip certainement dinañu ko am en exclusivité en continu aussi euh, mm. sur la chaîne TV la télévision leader Papa Ndiaye émission bi jeex na kontaan naa comme dama leen di kàmme ci rek waxtaan kaay ñu waxtaan waxtaanee fecc mi waxtaanee kii kaay jàng kaay waxtaan nga ñëw di jàngal yaa nga wax kii bi jeex na may tontu mi ngi nii di wax Pape Tàggool nga may jàmm jërë ngeen jëf kontaan yàlla jàmm yàgg ci kër gi yàlla ñu yàlla musal ci koo xamante ni ku mu invité bëgg ëllëg yi am ak yow ay problème waaye tey lay jeex fii ma bëgg nag di ñaanal jàmm sénégalais yi bu fekkee wax nañ fi lu fi ëpp ñu ngi jéggalu mm-hmm. bu fekkee def nañ fi lu fi ëpp ñu ngi jéggalu nit moo matul waaye am na loo xamante ni bu ko nit di def man noonu laa mel sama deret daf gaaw a tàng mhm. du ma la seetaanee noonu mhm. kontaan naa ci Nafi ah la plus belle kontaan ci Biggi mon ami mon frère waaye tey la yem mon ami mon frère bi <laughs> Biggi maa ngi sant di gërëm képp ku toogoon ci téléem di seetaan wala nga téye sa téléphone di ñu suivre tout le temps sur Facebook wala sur tous les réseaux sociaux wala ci application bi di euh, des médias disponible partout euh, foofu mënti nekk rek di ñu mën a suivre nga ñu seetaan que ça soit rajo beeg télé beeg journal beeg lépp di nga ko mën a am ñuy gërëm bu baax téléspectateurs yi toogoon di ñu seetaan encore une fois merci à vous et à samedi prochain. Mhm. voilà comme ni ko Biggi waxee euh, samedi prochain lañ leen di temps à que ngeen dem découvrir euh, clip bu dëgg la euh, bu ñu bu ñu dem euh, seetaan en exclusivité xëy clip bi nga xamante ni moom moo waral mu toog fii tey ñu seqoon ak moom waxtaan bu neex du ñàkk ñu yaatal ko ci suñu yeneen i émission rafetlu bu baax jàppandalu cuun saaliw papa